chiffre vingt neuf milliards muy sos bu rëy rëy waaye ndàmpaay bi koy mën a faj kay mooy vingt neuf milliards rek du dëgg courte que se paye par courte que du li nga wax jiñ ko nit te amul mais moom la lay fayee ko ndàmpaay moo tax moo tax membre ñaa am na droit def appel procureur bi nga xam ne li ma waxoon faa leen ko ci wane ni li muy Sonko faux usage de faux injure diffamation ñu ñàkkal ko fayda atte rek ci diffamation mu ne man d'accord ma ci ñu naan du topp procureur def appel waaye yéen di leen laaj yéen waa presse avant Ousmane Sonko appel yi fi am procureur di ko def pourquoi waxale woon ne procureur waru def droit waru def appel waaw Ousmane Sonko moom mooy kan moom mooy kan ba tax lépp ko laal ñu bëgg ko beral ay mbiram xam ngeen affaire viol guñ ci am na fi liberté provisoire bu kenn mosul am ku mel si toon duur amu ko woon ak ñeneen ak ñeneen ci Yérim Seck amu ko waaye moom beral lañ ko ko tey mu sosal benn nit yàq yaram benn ministre ministre bi dafa appel procureur dafa appel ñu ne déedéet comme Ousmane la Ousmane mu sell mi kenn amul droit def appel te yoonu appel nekk waaye tey ma ñëw nag ci ci verdict bi damay waroon wax Sénégalais yi xam ne manipulation bi am di jàll ci réseaux sociaux yi ak ci presse bi ñu gëmloo nit ñi ni deful appel may ñu wax sax mu def appel gëmloo nit ñi procureur war soon def appel naan Mame Mbaye Niang tee moo bàyyi tee moo bañ a def appel fu ngeen mës a gisee tribunal bii ñuy àtte chaque jour nit ku ñu ma saatte am ñu naan tey moo bàyyi parce que Sonko la encore tey moo bàyyi appel bi parce que Sonko la encore waa lu xew lu ñuy ragal lu ñu doo bay daanu Sonko mooy kan dafa ndopp Sénégalais parce que moom ay la bëgg moom nee na nee na nee na magistrat yi da a menacé yéen ñi àtte da ngeen xam donc saaga leen menacé leen xam nga loolu garaaw waaye malgré tout mu ñu jox ko sursis xam nga juge bu doon ko tëj un an ferme procureur demandé mais mu may ko six mois sursis dawal laa biir commencé jëm kaw ak sursis ou pas sursis kon juge bu njëkk bi li mu atte woon dawul du yoon moo tax procureur def appel procureur moom nekk société bi yëpp bu gisee ne atte bi jaarul yoon day def appel nekk pour Macky Sall nañ bàyyi loolu ñuy wax dama ne candidature bi intéressé wu ma xam nga lu ma intéressé atte tey bi kenn tudd fi ay sa ñomme moom sa mas ko wax def sa saytaane def yu xam ne dara baaxu ci sosal góor am ministre mu yóbbu la ci yoon waaw bu ñu la ba condamné tëj la bu dee tëj ba mayu nga dem nekk candidat waaye léegi di yaa ko def bopp tubaab nee na nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude mooy lépp loo def loo xam ne dalay lor bu la loree bu dee da ngaa dof wala nga jommi wala nga rakkaaju wala def loo xam ne yow en tant que chef de parti candidat bëgg yore réew mi ci lii nga def du defin bu baax lii nga def yoon da koy dàq lii nga def yoon da la ci condamné si bu la ci condamné doo mën a bokk waaw léegi nag est-ce que Macky Sall la boo yemoon fa nga war a yem bañ a tooñ jàmbur bañ a yàq deru Mame Mbaye Niang bañ koo sosal bañ koo fenal tey lii du la ci fekk waaye maa ko def te kenn du ko wax Olam Njaay mu ne déet waay déet yaa ko def yaa ko wax te waroo koo wax. waaw loolu dafa tuuti ndax fan wi dara man ku tardé aw ma réponse waxuma yow man ñun ñu nekk ci jamono laay waxal di am seek kenn def ko fi ci atte bi ku nekk bind lu la neex waxte lu la neex intéressé wuñu xam nga lu ñu intéressé fen wu réew mi fesal Mame Mbaye Niang ko fen mënul ñëw ni lii fen la mënul ñëw ni lii dëgg la dind fen wi mais comme moom may ma may leen bu leen ma saxal xam ngeen ma du ñàkk ma fay def leen ma daag dama ki sos sos wu réy wi yàqu deru jëkkëru jàmbur doomu jàmbur papaay jàmbur ministre jàmbur yaakaaru ay ay am nga taxaw ni seen waa ji la li mu sàcc lu pata la ñaar fukki milliards ak juróom-ñeent la mamba ñaa lam dal ti ñoo la mënoo koo firnde mënoo indi preuve bi teg ci taabal gi yoon mu ne ba sosalee gor yàq deram am na droit dem ci tribunal fi mu wax na nekkee benn comme yaa yàq deram yaa war a indi li wane ne yow yàq deram waaye boo ne yow tey da feebar suba da ngaa jommi ginnaaw suba sa biiree daw ginnaaw suba sa bët day métti tey nga taxaw menacé nit ñi dem si question ne maa bañ lànk ñëwuma xale yi wàcc si leen gunge leen ba tribunal waa déposé rapport bi wane ni maa mba ñaa moo sàcc jàpp xale yi wàcc si xale yi fekk leen tribunal dañu ànd taal dëkk bi waaye comme léegi Macky Sall Macky Sall neewoon na leen rien ne plus comme avant nee leen li fa amoon du amaat taal kër yi ba taal sama kër man taal nañ sama taal station Auchan yi di jaay ñu ngi di ci mbedd yi bu dee dañuy jaay bandi rek lépp ñu jaay état bi da ko jënd barke yonent bi. dommage intérêt ak